organisation politique en tout cas yu bokk f parce que tout Yewwi est dans F24 beaucoup d'entre eux ñoom dañoo contre la participation au dialogue hmm. yow nga ne dinga nangu dinga dem ci ci ci dialogue bi alors que aujourd'hui la dinamique dans l'opposition à l'exception de Khalifa Sall de moom bon Khalifa Sall joxeegul sax la décision finale mais tout porte à, à croire que il va y aller Euh, à l'exception de xalifa Sall ñi nekk dans l'opposition radicale ñoom ñëpp dañ ne du ñu dem ci ci ci ci dialogue bi lan moo sous-tendre cette décision dem ci dialogue bi d'abord du sama décision décision mouvement bi dañoo waxtaan ne benn dañuy signer charte F24 ñu liir ponk yi ponk boo xamante ni dañuy contre troisième candidature président Macky Sall ponk boo xamante ni dañu ne nañu respecte les libertés individuelles et collectives jàpp nit ñi di tëj ñun les emprisonnements systématiques dañu contre bi ci tegu mooy nañu fexe yaatal géew bi képp koo xamante ni bëgg nga bokk ci élection yi te nga remplir les critères nga bokk si nañu bàyyi la stratégie d'élimination des adversaires ñu signé non seulement le parrainage bi nga xamante ni pour ñun mën nañu comprendre ko mu am un filtre mais parenage warul nekk benn obstacle pour di éliminer et d'ailleurs parrainage boobu ndax def nañu une évaluation bu war ba xam ndax dafa indi renforcement de la démocratie wala def koo wañ ni ba tey ji mën nañu jàpp ni parrainage bi ni muy doxee surtout buñ ko fàtte à l'occasion des élections législatives on s'est rendu compte que parrainage bi ni muy doxee foog ñu xoolaat ko donc ñu signe charte bi ñu teg ci ne ñun demain c'est maintenant ñu ne njiitu réew mi woote na waxtaan ñu ne mouvement bu ko boo xamante ni dafa jóg ne co-construction maanaam nañu diisoo nañu xëccandoo nañu doorandoo nañu tabaxandoo mënul ne man duma waxtaan comme niñ koy waxee ku la woo bu la joxul wax la mais dañ ci teg ne njiitu réew mi nañu wax ci lan la ñuy waxtaane jàpp nañu le 30 mai bii la def waxtaan bi ñun benn ba léegi ñu ngi xaar ci li ñuy waxtaani les termes de référence. du dialogue. du dialogue gisaguñ ko ñaareel bi puisque dañuy jàpp ni acteur lañu te expliqué exprimer nañu exprimer nañu position bu mel ni certainement dinañ ñu woo bu ñu woowul aussi. on prendra acte et on en tirera les conséquences. Voilà notre posture maintenant.